jangeen jëf jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bisimilah ci xibaar tisbaar gi da ci gën a feste am yeneen forom fàcce ko dogalu àtte bi mu soxal Ousmane Ousmane ak kii di Madiambal Diagne dañ jàpp ne rot na ñetti weeri kaso yu muy tëdd moom lañ ko teg ci ndodam eh, njiital yéen gii di Le Quotidien boole ko fay la ko am ndàmpaay bu toll ci juróom million ci suñu koppar eh, wookaay yi koy lay ne mbir mi duñ ko bàyyi mu jàll des koy dañuy ci biir xibaar yi nga xam ne ni eh, moom e yu nekk ci daara daal di sakuraat ci seen mboolem yi ndaatagoo yi nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar ñu toog seen kër li ko waral nag moo di jàppante yi fàlle nemee ko ci eh, université ba eh, te ñu gis ko lu mooy eh, juróom yu tukkee ci jongante amical yi ñu fa doon amal ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne ni moom lañ ci rotal bu amee ñu kontaanul benn yoon ci anam bi ñuy liggéey ci réew mi ñoom ñoo mi naa daan doole yi wégguñu leen fàlle wuñu leen joxuñu leen benn gëdd ci biir kër gi teg ci dañ leen di fay niw lool Euh, yóbbee syndicat gi leen njaboote ci lëkkaloog waa CSA euh, taxaw tembe ngir jëlee ko fi ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg leeral yi tukkee ci soxna Aji Kuna Jeey kon mbokk yi daal mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum ci xibaar yi wax ci dogalu atte bi nga xam moo soxal mbiri Ousmane Sonko ak kii di Madiambal Diagne nañ mbir muy moom la ñu teg ci ndodd yi njiital yéen kaay gi di le quotidien euh, boole kook fay la ko am ndàmpaay bu toll daanaka ci téeméeri junni ak ñaar fukk euh, wookaay yi koy layal ne mu jàll des ci def appel ñu fàttali ne Madiambal Diagne tu maloon na euh, metti woon lool magistrat bi ba tax mu jëloon mbir mi daal koy yóbbu ci ci yoon jàppoon nañ ko nag ay yoon yoon maanaam euh, procès bi waaye finalement ni ji kon euh, ci la dogalu atte bi rot daañu ci jël soit incha allah rabbi ci i jotaayu xibaar euh, jàngalekat yi jàngalee ci philosophie yi mënuñoo fàtte seen naataango bi ay ab élève jàpp ci lycée bu Kébémer daal di koy néewal doole lu ni mel du buleen ñu koy dund ba tax ñu xëy te ñu daal di lu ci tolloo ñetti fan yàlla yoo xam ne ni daanaka duñ ko liggéey muy lu ñu am yéen dabali su fekkente daal nguur gi rawatina njiital Macky Sall jëlu ci ci élément bi euh, dañ ci dellu si ak suñ natangoo bi euh, di Moussa Sène ñeneen ñu am du leen metti ba tax ñu jël de ko daal di dakkal njàng ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom ñoo di waa SAES seen natangoo yëpp la ñuy jox dox euh, la ñuy sàkkoon ñu toog seen i kër ba keroog ak dal di dellu si ci université ba lépp nag mu ngi tuggee ci jongante ñu fa amal ngir natt amical bi gën a diis ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Abdoulaye Dieng doon kenn si ñoom am na ci ay yu mu ci indi ñu teewloo ko ci téléphone Pierre Edouard Faye depuis une semaine ñu ngi constaté quand même ay xeex au niveau de l'université la violence quand même ñu ngi commencé jël benn proportion boo xam ne kenn xamul fu muy yegg nous que suñu collègues yi ñenn ñi dañ leen attaque ñenn ñi physiquement ñenn ñi dañ doon def par exemple temps yi benn gis réseaux sociaux benn vidéo bu xamle benn enseignant bu doon cours yi ñëw arraché micro bi am na collègue yoo xam ne par exemple démb man si laa bokk dañ université étudiants yi baare yoon bi ne kenn du dugg soo bëggee dugg ñu oto am collègue boo xam aussi il a reçu des menaces de mort léegi mi fi nag su naree yegg fu sooy nag mais bon ñu régler ko te aujourd'hui ñun décidé mooy ñun il faut que au niveau des universités que ce de violence là vraiment ñu arrêté ko moo tax ñun ñu acte de vandalisme yi ñu demander autorité ñu identifier photo de trouble yi comme ça ñu sanctionné par rapport ak nga xam ne ñoom lañ posé beneen bi mooy ñu demander suñu collègues yi pour des mesures de sécurité parce que instant bi xamatuñ fa affaire demee ba aujourd'hui sooy romb ñu lay sànni la ñu toog seen kër yi ñu suspendre pédagogiques jusqu'à nouvel ña mbukaayo mi bu ne cin la boon dañu wax ne ma ngay baax fu nekk université assan Seck bu Ziguinchor bu euh, foofu yëngu am na fa université bu Sine Saloum naka noonu université Cheikh Anta Diop ba ci UBS euh, ci jamono jojule waa SAES ñu nga jël dogal kon daal di ajani njàng mi euh, lu jëm nag ci mbir moomu li soxna Fatou bintu Diouf amal na ci ab taxaw lu ñu teewlu ko ci jamono jile lay samp laaj mooy kañ la ñuy toog ba duñu déggati ay étudiants yu wàcc ci mbedd gi ngir fësal seen pëggoomu xol waaye luñ ci mën a wax moo di ay fan a ngi nii lépp tàggatémbe ci daara yu kawe yi ca l'université bu Sine Saloum El Hadj Ibrahima ñas foofee nag ndongo yi daanaka dañoo bank seenu loxo gedd en fia ñoom ñooñee nag daanaka ci jamono jile dañoo làbbaliwaat wàccati ngir rek fësal li nga xam ne moom moo leen daal di métti dogal ñu daal di jël moo di gantal kuur yi foofee gannaaw nag ba ñu daal di listé li nga xam ne moom moo di seenub càquteef te Ziguinchor moonte sax li ni mel lañ fa daal di nemmeeku ndongo yi ak ñi nga xam ne nag ñoom ñooy kuréelu enseignant yi ya nekk ci Assane Seck ñoom it amaloon nañu ab sintik la ñuy sàq moo di ñu daal di nag yeggali ay bâtiment ya nga xam ne tàmbale woon nañ ko ci atum 2015 loolee nag di seenub càquteef leen intersyndicat bi daal di xamle ni bu fekkee nag bi la yoon seenub càquteef antuwul benn yoon dañuy gàntal li nga xam ne moom mooy jàng meek njàngale waxtu boobee ndongo ya ñu orienté ca université virtuelle bu Sénégal ñoom meex ba futt la ñu daal di def ñoom it gannaaw ba ñu toogee fukki weer yoo xam ne ñoom it dañoo gedd en fia daal di taggatémbe lépp loo xam ne jàng ak jàngale bi la foofee ca Kolda wàccoon nañ ca mbedd bi daal di laq ay pëna waaye tamit xam leen li nga xam ne moom moo di seen jafe-jafe si jamono ji waxtu boobe nag seen moroom ya nekk ca UVS eno Dakar ñoom ña ngay sàqu ñu leen jox ay jumtuwaay yu wóor ngir ñu mën a amal seenu jàng ci anam bu mucc ayib ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar étudiant ya nga xam ne nag ca master 2 la ñu daal di nekk ñoom it nag dañoo gedd salle de amphi la waral nak li ni mel mooy nañ leen fay seenu payoor di fukki weer ak benn yoo xam ne moom la ñuy sàqu booba ki léegi gannaaw nag jafe-jafe yi nga xam ne gis nañ ko ci daara yu kawe yi fii ci Sénégal ñu dal di xam leen ni ñi nga xam ne ñoom ñoo supérieur féete ca UCAD daal di yëglu ñoom it dañuy banque seen loxo du ñu duñu ci benn yoon lii di cour naam sax fayuñu leen li nga xam ne moom la ñuy sàqu di peyooru weeru euh, décembre euh, ba ñu daal di génn jërëjëf soxna Fatou Bintou Diouf wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi ba may ñu kontaanul benn yoon ci anam bi ñuy liggéey ci réew mi léegi ñoom ñoo di mina daan doole yi eh, wegguñu leen faale leen joxuñu leen benn gëdd ci biir réew mi eh, teg ci lañ leen di fay dafa néew lool yóbbee syndicat gi leen njaboote ci lëkkaloo waa CSA eh, taxaw tembe ngir jëlee ko fi bind nañ am mémorandum fas yéene ko jébbal député yi ngir ñu àddu jëmale ko ci liggéey mina daal doole fii ci Sénégal am ndaje nag lañ doon séq démb ak taskatu xibaar yi aji kuune jee lañ fa yabaloon ñin na daan doole yi ñoo ngi sàkku ñu gën leen jox seen gëdd ñu bëri lool fii ci Sénégal ñoom nee ñu dañu mel ni ku bokk ci réew mi expatriés yi ñoom ñoo war a respecté seen ak ak seen yelleef et eh, ñun sénégalais yi ñun sénégalais yi waruñu waruñu leen fay salaire bu décent waruñu leen traité comme ni ñuy traité suñu doom yi te da koy gis ci kër yi moo fi ëpp man yaakaar naa sax loolu moo gën a tax ñun sawaruñu ci taxaw pour régler cas bi atum 2011 la conférence internationale du travail jëmmal benn convention ngir gën a tàggat liggéeyu min na daan doole waaye boobu ba léegi dara sotteegul la Denis Bindia secrétaire général bu syndicat autonome des employés de maison. de defu ci du dara kon ñun fu mu toll nii ñoo ngi ñoo ngi négocier ak moom ndax lépp loo gis danga koy jiite ci négociation ba pare. après nga door a dem si beneen étape. njiital jigéeni CSA Abibatou Silla moo ngi ñëwaat ci ponk yi nga xam ni dugal nañ ko ci mémorandum bi ñu jébbal assemblée nationale. protection sociale ñu def si tam encadrement parce que ministère du travail dafa am mooy inspecteur du travail dañoo war di dem di xool employé bi fi mu nekk. parce que loolu. nawloo wuñ leen xeeb nañu leen ba tax na miin na daan doole yile ñoo ngi sàkku ci nguuru Sénégal mu jàppale leen ci seen liggéey ba ñu mën leen jox seen cër rawatina ci wàll yoon ba kenn dootu leen mën a beddi. jërëjëf soxna Aji Kouna Dieye ñu ngi lay sant di lay yërëm béykat yi nekkee fële ca Godegeen di benn gox bu nekkee foofee ca commune Ndiaga Niaw kontaan nañu benn yoon ci nguur gi ab doxu ñaxtu moom la ñu amal di ñaaw li tax jiwu ji ñuy séddale béykat yi ñoom duñ leen ci boole ci jamonoy Léopold Sédar Senghor la ñu ko la ñu ko jot jiw joo xam mu ngi bàyyee ko ci nguur loolu la ñu wax ne dafay dakk njiite daal réew Macky Sall la ñu sàkk mu wax si dañuy dem ci diwaanu te mu bootu ci biir commune bu Njagañaaw ñooy ñaaw lu fàtte gi leen kilifa yépp fàtte. ñun ñuy béy nguur gi daf ñu fàtti daf ñu daf ñu ñàkkal fayda dañoo fàtti dafa mel ni Sénégal bokk bokkuñ ci. Godé Gén Mauritanie sax moo lañ bokk lañ bokk. ci gis-gisu ñoom baykat yi biñ leen di mujjee jox engrais wala semence. ci jamonoy président Léopold Sédar Senghor la woon. dañu xamul ban année la ñu gis dégg xeetoog engrais semence waxatuñ ko ñu ngi nii nawet jub si na taw na fi barki démb taw na tooyul mais amuñ semence amuñ engrais. bi ma juddoo ba léegi depuis année soixante bi léegi maa ngi fi gis gis lu mel noonu ci jamono Senghor Abdou Diouf tuuti Abdoulaye Wade sax amul woon loolu. ginnaaw bi ñu fësalee naqar bi ñu àndal ñoom baykat yi ñawlu nañu tam li ñu leen génnee ci programme bi di ps e wala lu ñu leen ñàkk dugal ci doxaliinu réew mi. ku amul lu la gënal am am li rek xaar nañ leen bu ruj nañ suñ tool amoo jiw taw na taw na. man daal su ma déggee ci rajo su ma ubbee su ma rajo di déggee Sénégal émergent Sénégal émergent damay foog ne Sénégal dafa am ñaar Sénégal est-ce que amul beneen Sénégal bu nekk côté bi bu bokkut ak bii. ñoom baykat yi dañoo pëtëxlu ci benn doxu ñaxtu bu ñu amaloon ci seen diiwaan ga ngir yëkkati seeni ñugu ñugu xol. Mbuur Thierno Daaf. Walfadjri. jaajëf Thierno Daaf Mamadou Mamar Mamadou Mamour Diallo mi ngi jiital impôt demit woon dañu ko déclaré personne non grata fële ci marché Louga ah, kàddu yi mu yëkkati ni ki fan yi génne daal di ñaawlu melokaanu seen marché bi teg ci nag joxoñ ab baaraamu tuuma Moustapha Diop muy maire Louga ne moo deful liggéeyam metti na loolu commerçant yi lee ah, keroog ba marché bu Louga lakkee commerçant yu bari ñàkk seen liggéey ana fu mu nekkoon moom Mamadou Mamour Diallo Moustapha Diop ak Amadou Mbéri Sila yi muy xarapa ñoom ñoo ko gën foofu dañuy sàkku ci moom daal mooy mu dem outil base te bàyyi leen ñoom commerçant yi lee Birahim Tall mooy délégué de marché ba am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro Omar bàyyi ba période boo xam ne taw na ba pare rek nga profit profité ñëw ci marché bi di di di wax di critiquer naan dafa salte dafa nangam waaw salte gi xanaa léegi la ko gis bi bi marché bi di lakk li tax ñëwul woon jege commerçant yi bi Moustapha Diop di yóbbu 10 di ko may waa commercant yi di leen ko masawoo moom fan la nekkoon bi Mbéri Sylla di yóbbu un million cinq cent ca marché ba Mamour Diallo fan la nekkoon bi nu lu jiitu loolu sax bi bi autorité sanitaire yi santé gouvernement bi ñu tëj marché yi pour Covid 19 bi ñun ñun bi ñu ko tëjee Mamadou Mamour Diallo ñëw na ci dëkk bi dem fu ko neex mais mosul woon a dem foofu ca marché ba te booba maire bi mi ngi doon def li ko war ci marché bi. d'ailleurs ba mu lakkee sax fa lakkoon ñun dañ koo defaraat la hauteur treize millions et quelques boobu moom lan la ci dugal tey jii mu ñëw dem ca marché ba di kar nit ñi ci mbedd mi di leen xeetal ci kaw maire bi dama ne yooyu du jàll nit ñi dof na ñi gis la maire bay def foofu ak ñun ñi nga xam ñu ngi koy liggéey ak délégué xam na ni maire baa ngi def effort d'ailleurs bu ngeen seetloo ci image yi du ngeen fa gis benn délégué bu fa taxaw fii mu ne ku jóg wax ku bëgg ñu bàyyi la xel ak ku bëgg a nekk candidat il faut nga dem jéem a gàkk gàkkal liggéey jàmbur. waaye defe ni dem wuti base dajale remobiliser waat sa base bu dee am nga ko marché bu ñu ko dee tëj protection civile moo koy tëj te protection civile bala muy tëj marché dafay dem def visite saytu ko xool ba xam ne marché bi répondre tul ak normes yi yi nga xam ne moom moom moom norme sécuritaire la. bu fa protection civile àndal ak service d'hygiène service d'hygiène xool ba xam ni calte gi ëpp na ci la ñuy joxe ay mesures ni buñ ko dindi wulee daan ko tëj te loolu yëpp dara amu ci. ñu àddu wax ci wàllu politique Ousmane Cissé di ab responsable APR nekk fële ca Kër Massar Nord samp ni dëndam fas yéene bokk ci élection mairie yi jëm mbooleem responsable yi nekk ca gox ba ñoo daje daal di koy samp kon Ousmane Cissé am na ci sax ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo li da dëggal li nga xam ne dynamique unitaire euh, proposé nañ ma ko comme quoi que ma doon seen candidat ci élection yii ñi jëm le 23 janvier incha allahu fii ci commune nord bu Kër Massar ma nangu ko ci li tax itam ma nangu ko mooy euh, président de la république de son excellence Macky Sall euh, ba may ànd ak moom booba affaire juddoogul ndax bi nga xamee ni ñi ngi koy sonal ca assemblée nationale da xeex mandat wu yi ci laa demoon solidarité wu ak moom ci mitin wi ak naxar wi nga xam ne nii ñi ko bëgg a teg ak dindee ko ci numéro deux wu parti démocratique sénégalais ma daal def délégation dem euh, solidarité ak moom ak ñi nga xam ne ni moom laa àndaloon bu mu génnee delloo lépp loo xam ne nii amoon na ko ñëw kere partim ci laa dugg man itam ci parti boobu parti boobu première carte fii ci Kër Massar jan ci ci ñi ko jënd ci la bokk ba ma ca bàyyeekoo daal taxawal comité ba ma ca bàyyeekoo taxawu lu mat fukki doomu aadama yoo xam ne kenn ku ne taxawal na euh, carte comité euh, euh, carnet comité boo xam ne président Macky Sall ci boppam moo ko ci ñi mais defal ñaari département yoo xam ne man bi ma bokk de Keur Massar Nord ci laa posé pour doon candidat wu Benno Bokk Yaakaar fii ci commune bi. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo kon ci Ousmane Cissé responsable politique la nekk foofee ca euh, euh, Kër Massar Nord euh, donte lay géej gi mu ngi rey bés bu yàlla sàkk waaye terewul tefes yi tey ji la ñu gën a fees ak ay doomi aadama ñenn ci ndaw yi jàpp ne sensibilisation bi moo des ndax ñu bari ci askan wi xàmmewuñu géej gi ñu war sangoo ak gañ ko war a defee Toussaint Senghor Babacar Diouf doxantu juwoon nañu fële ca parcel Parcelles nii ñu teew leen ci reportage. jamono ji xale yu ñàkk seen bakkan ci biir géej gi bëri na loolee tax sax ñu doxanti woon ba plage yu Parcelles Assainies fekk fa Julien mu ñuy xamal ne dañoo war a bu baax ci plage yu ñuy sangu. ñu ciy bàyyi xel bu baax parce que d'ailleurs tout sax amoon na benn xale bu ñëwoon pour bëggoon sangu wax ñu téel ko ay bagages yoo après ñu ne ko wóorul non avancé parce que fii du sangukaay ñu dàq ko ci quoi parce que dañoo gis ni la plupart booy fii sangu ñoom dëkkuñu aleyaa yi dëkkuñu côté yi ñëw fii nii xam nga fi moo gën a jege ka dem ba Besseyaaw moo tax ñu doon bëgg léegi di sangu fii mais ñun moom bu ñu leen gisee dañ leen koy tere. ñu sukkandikoo ci Mouhamed jàpp nañu dañoo war a dem rek ci plage yi nga xam ne mun nañ faa fay bu ko defee rek ñu mun faa sangu. yaa limité sa bopp quoi yaa yaa xam sa bopp boo la leeree ne géej gi baaxul par exemple kom géej bi eh, leer na fii baaxul li ay courant la tra bëri na ay canal tamit xam mais par rapport ak Île de gore wala Île de Ngor foofu mën nga fa bañ a naaj quoi kenn du nga féeyee ba fu la neex bu fekkee mën nga féey quoi. waa jële moom ñu fekk ko rek muy def ay entraînement moo ñuy xamal ne dañoo war a yokk sensibilisation bi. information bu ma war a circuler à travers la télé yenn canaux canaux réseaux sociaux yi pour gars xam ne carrément que plage yi c'est interdit par la baignade bañ fa demati rek information moo jaral ko parce que jeunes yi ñoom xamuñu dara tey ñëw gis géej bi nii rek ne ay ca ñëw rek sangu. xamuñu carrément que plage bi si c'est interdit fii wala si c'est autorisé. jamonoy tàngoor plage yi dañu bëri nit ndaw comme mag nag ñëpp dem rek ngir mun a féexlu wante rek waaye juri nag ñoo ngi leen di woo ñu gën a teg bët ci seeni doom. loolu yi nag ñu may ñu wax ci tàngoor wi nga xam ne yosee na fii ci diwaanu Dakar mu doon na ngëneel ci jaaykatu ventilateur yi frigo yi ak ñi nga xam ñoo koy defar ñu bari si ñoom ne bu ñu amoon lu leen gënal bon seddaay bi du am ndax fi mu toll seen liggéey daal mu ngi dox bu baax a baax Ndeye Anta Dieng Babacar Diouf reportage ci ndakaaru ci tàngaay gu métti gi sénégalais yu bëri dañuy dem jëndi ay ventilo ay climatiseur wala sax ay frigo jaaykatu appareil yooyu di ci gis seen bopp lu bëri soxna Marème Thiam di ab jaaykatu ventilo di ko firndeer. waaw ventilo moom mi ngi dox moom période tàngaay bi day dox bu baax day dox bu baax macha allah. mënuma toog journée duma jaay vingt benn ñaar wala ñetti ventilo man tàngaay sax laa koy jaay. bu dee seddaay duma ma du ma du ma du ma dugg ci ventilo parce que seddaay bi kenn jënd ventilo naan ndox mu bëri ay médecins yu bëri di ko digle ci période bi ñu war a yittewoo ay frigo waaye bu ñu sukkandikoo ci sëriñ di ab jaaykatu frigo njaay mi demeewul noonu année président da doon dox mais ren ji moom gisooguñu dara rek waa voilà client yi ñëwooguñu ñii xam naa ñoo amul xaalis euh, ak euh, ci mooy pandémie yu ñu jugee voilà xëy na loolu aussi joue ci jamono jooju ñu bëri daw dem seeti réparateur yi ñoom it ñoo ngi ci gis seen wàll. bon déjà sa ventilateur bu yàqoo nga war ko jënd ay vingt cinq mille francs ay presque mën naa ne ay trent cinq mille bon donc ci xam nga sa ceeb sax matul dafay metti moo tax d'ailleurs nag ñun yàgg ci ouvrage man damay def ay réparation waa ñun ñaa ngi ñëw mais bi ñuy ñëw li ma ci am alhamdulilah. période tàngaay bi bu waa Ndakaaru sonnee lool réparateur yi jaaykatu frigo yi ak ventilateur yi ñoom ñu ngi ci gis seen bopp bu baax. jaajëf soxna Ndeye Anta Dieng ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofu la ci la ñuy tàmbali sa génn ci xibaaru bitim réew yi dañ ciy ànd ak soxna yaay Adama Diallo. xibaaru bitim réew dañ koy doore eh, ca réewum Côte d'Ivoire jamono ji askan wi di xaar dellu sib Laurent Gbagbo roppalaan bi ko war a indi nag eh, départ na ba 11h47 jotee ca Bruxelles ñu fàttali ni ki nekkoon njiitu réew bu Côte d'Ivoire ñoo ngi ko doon toppee crime contre l'humanité wante ginnaaw ba ko justice internationale tegilee tuuma boobu